yee eh, gars yi Kylian Mbappé bañal na kookee di Arabie Saoudite offre bi ñu defoon lépp nag Real loxoom génnu ci mu ngi noonu daan leen expliqué mbir num demee ak naka la salaamaaleykum amate de foot nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant affaire si officiel tombé na Kylian Mbappé jëlul décision waxtaan ak kookee di Arabie Saoudite ci mbir mu jox ci transfert am balaa may dugg ci expliqué leen mbir mi nu mu demee ak naka la dama leen annoncé comme d'habitude xam ngeen ko léegi kookee di Samu Global Business ki nga xam dalay jaay iPhone yu tegu ci temps accessoire accessoire Apple lépp lu soxlaa muy chargeur AirPod ak lépp muy noonee te li la ci gën a neex dalay jaay iPhone may la AirPod jox la chargeur yamaatuñ foofu boo xefee sax mu jox la dàll muy noonee ku ba yore portable iPhone bëgg a teg boo ñëwee ci moom day gën a yomb bi yomb tegu ci temps mu ngi foofee ca Colobane en face robinet serveur séeréer yamaatuñu foofu Tëngéej en face maquette ba numéro euh, di euh, euh, naa ko bind noonu ngeen gis ko en tout cas ay mbiram tegu na ci temps gars yi daal ñu ngi apprécier bu baax a baax mu ngi noonee bu ñu duggee ci cas kookee di Kylian Mbappé moom mi nga xam ne coow li bari woon na lool ci ndaxam dafay dem Real de Madrid bañ naan baax saa dugg na ci ak ñi naan Arabie Saoudite teg na lu mat 700 millions pour salaire salaire euh, ci at bi pour jox ko ko mu noonu ne mu doon dem ba ci biir proposition boobee waxaatuñ ci dara ba léegi nag li waral loolu ñoom dañ ko boole woon ak contrat boo xam ne longue durée lay doon. nu mu leen expliqué mu demee maanaam dafay toog lu yàgg te client xale la bëgg na jël Ligue des Champions bëggul carrière wu réyu néew mu ngi noonee mbir yi nag xaw a sooxe ñoom nag ñu proposé waat tey ji maanaam fay ko deux cent millions d'euros ci benn année. képp anne boobu rek lay football ba 2024 mu dem fu ko neex loolu lañ ko proposé waatoon tey ji waaye finalement Kylian dafa jël décision ne du discuter ak kookee di àll Hilal ci li jëm ci wàllub transfert am tey ji 25 26 juillet ci wàllu tàggat yaram mu ngi noonee Kylian Mbappé daal refusé na nee na mbébétam du dem foofee ca al hilal mi nga xam ne xaalis weex tal lañ teg ba pare cent pour cent de ses de ses droits yooyu yëpp ñu tegal ko ko ci table bi waaye kookee di Real de Madrid li tax ma ne loxoom génn ci nag PSG boobu ba léegi mu ngi leeral que ni ñoom ñu ngi génn di leeral que ni Kylian am na accord ak Real de Madrid loolu moom jeex na amatul nëbbu sax dil la woon mais kalaate na ba 2024 la fa war a dem libre moom la waxtaanoon ak Real de Madrid mu ngi noonee looloo waral nag ba léegi Kylian euh, foofee ca Arabie Saoudite mën a du waxtaan ak ñoom ba pare yamaatuñ foofu ba léegi prolongation ak Paris Saint-Germain waxu ci ba nii kookee euh, di PSG nag jamono ji mu ngi tremble nag jaaxle na ci kookee di Kylian Mbappé nag dana ko boo prolongé wu dama lay teg ci banc bi mu ngi noonee yamaatuñu foofu te Kylian Mbappé teg ko ci banc bi yombul en plus salaire bi mu koy fay boo ko tegee ci banc bi yaay yàq sa xaalis parfois di nga am match yoo xam ne danga koy soxla doo xam nooy def en tout cas mbir mi commencé naa dugg mbiru bras de métti na trop ci côté PSG Al Hilal mi yaakaaroon nga xam ne ah, moom dafa laaj prix bi mu teg lu ko ëpp 300 millions d'euros ba yaakaaroon ne ne vraiment mbir yi xaw dina xaw a sooxee ba sax PSG teg deal Euh, génnee euh, moog l'équipe génne benn xibaar boo xam ne mu ngi mel ni que Barça dafa def demande pour Kylian Mbappé pour teg pressing Real dama mu profité ñëw balaa Barça di ko suufu mais Real dafa calmer seen fam la teg waxul deful dara moom it ba deal bi boobu tamit kalaate Barça génn démentir mu ngi noonee mu doon mbir boo xam ne jaxasoo na métti na yéeme na ci euh, coquet di Paris Saint-Germain jaaxle na trop trop mais Kylian moo leen war a jàppale. moom mën na dem mais mu bañ a dem libre tamit nag ñoom nee nañ dinañ ci ñaat xaalis bu bëri ak liñ jotu def ci moom fournir ci moom mu ngi noonee bu loolu leesoo dañuy konne gars yi ba tey ci xibaar mercato bi euh, di leen leeral que ni kookee di yi euh, mën naa ni euh, actuellement am na accord daanaka moo ko club bii di Al bi nga xam ne moo topp Kylian Mbappé ci trente millions d'euros ngeen xamee ko noonu kookee di Marco Verratti noonu PSG dafa bëgg plus de trente million d'euros léegi Al jamono ji ci Verratti la jéem a convaincre ba am aval léegi nag muy jéem a déggu PSG xool nu muy ak amee accord ak moom PSG daal plus de trente millions la laaj ci kookee di Marco Verratti yamaatuñu foofu gaay di leen leeral que ni euh, le jour boobee euh, nga xam ne ne moom la ñuy wax euh, malkom c'est officiel signé na foofee ca Al Hilal moom it c'est officiel doon na joueur Al-Hilal la brésilien ñu ngi ko jëndee ci soixante millions d'euros Malcom ancien joueur FC Barcelone ngeen xamee ko noonu Fred nag jamono ji euh, club boobee di Galatasaray actuellement teg na ci temps ngir war koo mën a jënd di leen xamal ne ne Fred Fred dafay jóge foofee ca Manchester United lépp leer nañ mu ngi noonu ngeen xamee ko noonu kookee di Moussa Dembélé nag euh, signé na c'est officiel Al Ittifaq ba nga xam ne ne euh, mën naa ni kookee di Henderson bu Liverpool fa lay dem def na tàggoo ba pare ak kookee di Liverpool nee na douze ans mu toog ko vraiment foofee ca Liverpool simple du yomb du ay wax ci lay tàggoo ak yéen du noonu na loo xam dina metti moom ci loolu waaye du leen mas il sera rouge pour toujours mu ngi noonee dina leen topp fépp fu ngeen mënti nekk dayot Upamecano nag génn na bay leeral ka ni masul xalaat benn seconde boo xam ne nii pour quitter foofee ca Bayern Munich la nee na dina fexe ba gagné place am loolu daal mu ngi koy liggéey leen leeral ka ni ancien joueur Real de Madrid boobee ñu naan Isco moom nag daanaka euh, signé na sax ba pare foofee ca Real Betis jóge na Séville nga xam ne après ba muy xeex ak fa la mujjee dem foofee ca Real Betis bu ñoom Youssouf yi ake nag ak Manchester City ñu ngi waajal benn prolongation contrat boo xam ne longue durée lay doon Lolande Lolande accord am na mbir mi ñu officialiser ko rek moom moo ci des lépp mat ngeen xamee ko noonu mu ngi noonee gars yi loolu moo nekkoon xibaar gi euh, tey 26 euh, juillet euh, ci wàllu tàggat yaram ci dossier kookee di Kylian Mbappé leen wax képp ko xam nag abonné goo suñu chaîne YouTube simple dugal suñu bio TikTok nga bës logo YouTube mu yóbbu la chaîne YouTube bi nga abonné foofu activé cloche di seetaan foofu vidéo yi ba mu jeex loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax kon nag gars bu leen ko taayee s'il vous plaît def leen ko massivement ngir war ñoo mën a soutenir jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous.